wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi len di nuyu kenn ku nek ci yeen di len geureum ci teway bi ngeen tew ak ñun ci waxtu yu am barke yi ñu passé te batay sax ñu nek ci fan yii dafa amoon ay xew-xew yu xewoon biir Sénégal bim xewee muy ay manifestation yu am ci mbedd mi bim xewee ñun ñu taxaw seetlu def ci ab jàngat jàngat boobu lañ bëggoon a partager ak yéen dañu seetlu ne Sénégal dafa mel ni dafa xaaj ñetti xaaj fiñ toll xaaj bu njëkk bi mu di xaaj bi nga xam ne gouvernement bi moo fa féete te président Macky Sall jiite ko ak ñi màndal beneen xaaj bi di opposition bi te nga xam ne ñoom ñoo génnoon ci mbedd mi fan yi di am lu ñuy revendiquer ak ñi ñàndal président Macky la ko la laajoon baat waa Sénégal ñu jox ko muy première mandat mu jeex 2019 mu laajaat beneen mandat ñu joxaat ko ko mandat boobu war a expiré 2024 bii ñu jëm te ci constitution bi dañoo wax ne nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs kon légalement ak légitimement yépp président Macky Sall 2024 moom reñam magistère am dafa war a jeex mu war a nekk arbitre élection présidentielle 2024 te loolu la ñuy xaar ci moom beneen pàcc bi di opposition bi nga xam ne ñoom dañoo bëgg a jël nguur gi te duñ ko jaaree ci urne yi duñ ko xaar ba élection waaye dañ ko bëgg a jël léegi léegi ñaari pàcc yooyu moo fi nekk mais am na beneen pàcc nag ci boobu laa leen di woo ndax man fa laa nekk muy une troisième force boo xam ne ñoom dañoo gëm ne jàmm ci la lépp xaj ñoom dañoo gëm ne senegal réewu jàmm la cohésion sociale bii fi am amut fenn ci biir àddina bi da ngay gis jullit yi ak catholique yi nit ñi nekkee benn am na sax ay dëkk yoo xam ne seen armeer yi benn la nga gis waasoo yi tarixo yi ni ñu nekkee benn di demlante di dikkalante ñoom ñëpp daanaka ñoo bokk benn maam ñoo bokk benn garab gu leen meññi mu am tamit ci xeet yi ak ci itni yi benn jaxasoo boo xam ne amut fenn muy système mu kal boobu nga xam ne jóobeen yi ak njaayeen yi ñangeen yi ak faaleen yi ñaseen yi ak Si si si, yi ak sekeni etc etc cetera et cetera ben mu nek édifice ben havre de paix ndax Sénégal pays de la teranga lañ koy woyé lolou nak duut ñun ñoko tabax duut ñun ñoko liggéey mais suñu suñu suñu suñu ancêtre ak suñu ayé plus de 500 ans ñom ñoko liggéey kenn ku nekk daan indi brique di tek keneen indi brique di tek keneen indi di brique di tek bañ am édifice bii di havre de paix bi am ñu jóg tey ne dañ ko yàq ci rek intérêt personnel te fekk ne intérêt collectif moo war a jiitu toujours intérêt personnel ñun nag troisième force dañoo jóg taxaw tàllal suñuy loxo wax leen ne nañ leen bañ loolu nañ bañ ñu yàq dëkk bi képp koo xam ne da ngaa bëgg ñu jox la ay lenge da ngay da nga koy laaj jamonoy élection présidentielle ci foofu dong nga mën a faloo mais ci diggante bi mënoo falo li am mooy troisième force bi mooy wax dafa yàgg am sax duut ne léegi la am 2000 ñoom ñoo voté woon pour régime socialiste bi jóg fi waaye boobu vote sanction lañ defoon tànn tànnuñu woon dañoo wax rek ne ki fi nee na jóge fi 2012 tànn tànnuñu dañoo wax rek ne ki fi nekkoon di waajal laaj troisième mandat na fi jóg 2024 bii tamit loolu lañ nar a defaat vote sanction ñuy laaj Sénégal kañ lay tànn président te du def vote sanction loolu nag ci lañ leen di woo pour ñu élever débat bi mu nekk débat bu kawe mais bu mu nekk débat ay téesante ay polémique ay saagaantey ndey ay xastante ndax loolu ñun xamuñu ko sax étranger yi ñëw ci biir réew mi ñoom ñoo ko fi indi ñu war a dëgër nag taxaw pour fexe loolu nga xam ne Maulana Cheikh Ibrahim liggéey na ko loolu nga xam ne Maulana Maam Alaaji Ablaay liggéey na ko loolu nga xam ne ñoom Alaaji Maalik liggéey nañ ko ñoom Serigne Touba liggéey nañ ko ñoom Cheikh Saad Bu ñoom Amari Ndak Seck ñoom Boukounta ñoom Seydou Mouhamad Ba ñoom ñëpp ñoom Ngalandou Diouf ñoom lamin Guèye ñooñu ku ci nekk dafa teg brique ba bañ am lii ñu am tey képp koo xam ne mënoo yokk mënoo koo defaraat mënoo koo gën a ñoŋal waroo koo yàq ñun nag am na benn sas bu ñu war mooy li ñu jot ca bàyyi ak maam ya ba mu agsi ci ñun muy havre de paix bii réewu jàmm bi ñun ñu war ko transmettre suñuy doom nañ fexe ba puso bu mu réeree ci suñu loxo nañ fe transmission nag moo gën a jafe li nga jot nga joxewaat ko nam waree maama bàyyi dafay wax mu ne ñetti façon doom moo am doom bu baax doom bu bon ak doom bu gën mu ne doom bu bon mooy lépp lu ko baayam yeeg maamam yi jox daf ko yàq yàlla nañu yàlla musal ci boobu doom doom bu baax mooy doom boo xam ne li ko bàyyi ak maam ya jox daf koy sauvegarder téye ko comme ni mu waree mu joxe waatee ko noonu waaye doom bu gën yàlla nañu yàlla def doom yu gën mooy doom boo xam ne liñ ko jox dafa koy améliorer ndax tout œuvre humaine est perfectible daf koy améliorer gën koo ñoŋen gën koo yokkaat ñun yàlla nañ nekk doom yooyu nga xam ne dañuy yokk liñ ñu jox waaye du yàqoo suñ loxo li ma leen di woo mooy ñu ñu taxawal gën a organiser troisième force boobu ba nga xam ne régime bi du laaj troisième mandat mais opposition bi tamit du déloger président de la république ci palais bi fekk na mandat bi motut ñi ngi woote benn deuxième vague yalla bu ma am ñi ngi woote yeneen i émeute encore loolu tamit yalla bu ma am il faut que ñu dëgër xamné ku ci nekk jamono bi nga ne ak place bi nga ne espace beeg temps bi nga nekk ci nga war a mën a liggéeyal yàlla li nga koy liggéeyal mm-hmm. te kenn ku nekk ci ñun soo nekkut responsable tamit comptable ndax da ngaa fekk mbir yi kon war nga caa def kenn ku nekk ci ñun war nga caa def la nga xam ne moom nga ca war a def ci loolu lañ leen di woo ñu ngi leen di tàllal loxo ci troisième force boobu danañ ko gën a améliorer danañ gën a toogaat ci ay atelier ak ay séminaire ak ay débat yu bëree bari pour gën koo discuter waaye tey dama ne woon naa leen jox loolu rek